waa artiste bi tey dangaa mer de. damaa mer Diarra Chou Fall damaa mer ci xale bi nga xam ne dafa bëgg a yàq boppam ci diggante ñaari góor yow juddu woo sax ci nen. vraiment nga mel nii ku nu ne firaaw naay sa baay. moom yow lan la jëy naa lan la. Hmm. naa yow utal nga sa bopp étiquette boo xamante ne góor ñi lay ñemee sax dañu koy seetaan. ca tubaabe bala étiquette. Hmm. jay naa yow boo génnee lan ngay wax ñi la bëgg jay naa dagg nga suma xol yi hmm. ñun ñi la bëgg jay naa jël nga paaka jam ko fii ci suñu xol yi hmm. dañ la daan xool di la bëgg di la yërëm jay naa nga jàpp sa bopp def ko si ngom marabaa hmm. dëlimal dëkk yàqum réew xasawal gémmi njëg dërëm naa yàq nga sa bopp ba fi mu nekk ni képp ku la bëggoon mu ngi lay bañ yàlla nag yërëm a ko gën man dama laa yërëm ndax doom nga junu jur comme doom yépp waaye li nga def ñaaw na lool. fi nga ko defee. at na dellu seegul wala dellu na ba. waaw artiste bi tey dangaa mer de. damaa mer jaara sufaal damaa mer ci xale bi nga xam ne dafa bëgg a yàq boppam ci diggante ñaari góor yow juddu woo fett goo sax ci nen. nga mel ni ku mu ne firaaw naay sa baay. moom yow lan la naa lan la. Hmm. naa yow utal nga sa bopp étiquette boo xamante ne. góor ñi lay ñemee sax dañu koy seetaan nag. ca tubaabe bala étiquette. Dieyna mhm. yow boo génnee lan ngay wax ñi la bëgg Dieyna dagg nga suñu xol yi. Mhm. ñi la bëgg Dieyna jël nga fii ci suñu xol yi. Mhm. di la bëgg di la yërëm. Dieyna nga jàpp sa bopp def ko si ngom marabaa. jëlimal dëkk yàqum réew xasawal gémmi njëg dërëm. Dieyna yàq nga sa bopp ba fi mu nekk ni képp ku la bëggoon mu ngi lay bañ. Hmm. yedd nag yërëm a ko gën man dama laa yërëm ndax doom nga junu jur comme doom yépp waaye li nga def ñaaw na lool hmm. fi nga ko defee